jaa ngeen jëf mbokk yi RFM matin 7h40 sunu gan Babacar Ba salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar Fall. di nuyu Georges Déthié Diop yow yaa jiite Babacar Ba yaa jiite euh, kuréel mbootaay gu nekk société civile bi di sàmmal nit ñi seen àq ak seen yelleef ñu tuddee ko forum du justiciable. coowal droit de l'homme ci Sénégal nag fan yi euh, ñu ngi koy junj lool ndax Guy mari saña mi ñu téye ci kaso bi te mook juróom-ñett nit yi ñu euh, jàppandool euh, bi ñu leen yóbbu ci kaso juróom-ñett ña bàyyi nañ leen ñoom ñëpp mu des moom kott est-ce que da nga jàpp ni ñi yor nguur gi yor yoon dañuy euh, jëflante ak moom. waaw jërëjëf ci ci invitation bi donc may nuyu Georges du nuyu également auditeur u RFM yi nga xam ne ñoo ngi ñoo ngi teewlu alors Babacar laaj bi dafa am solo lu tax mu am solo mooy. Euh, je pense que tant que droit de l'homiste nous ci ak donc euh, du ma mën a li nga ne euh, arrestation ki nga Sénégal, le parce que dama ma ni ci réew mi mel le Sénégal ci réew moo xam dañuy bàkkoo ni réew la boo am état de droit réew la boo xam am démocratie ñuy dem bay teg parce que dafay manifester parce que dafay def lu ñuy wax doxub ñaxtu mu nekk loo xam ne également suñu constitution moom moo ko prévoir euh, non seulement suñu constitution moom moo ko prévoir mais ki nga xam ne tey moom mooy le juge suprême maanaam cour suprême euh, dafa am ay décision yoo xam ni daf ko daf ko génne daf ko génne di di recadrer ki nga xam ne tey moom mooy le préfet à chaque fois bu jëlee ay arrêté yoo xam ni interdire li nga xam tey moom mooy ay manifestations may rapidement que en 2011 Cour suprême euh, ci arrêté numéro 35 du 13 octobre 2011 dafa annulé woon arrêté préfectoral mu arrêté préfectoral numéro 3284 du 23 décembre 2010 bi nga xam les dafa interdire manifestation euh, la RADDHO à l'époque euh, le doyen Alioune Momoko moom won ñu waron def ben rassemblement le 24 décembre 2010 euh, Cour suprême di fatali préfet bi neko ko nam la loi de 1978 may la nga ayé li nga xam té moom manifestation bu fekkente ni dafay causer lu ñuy wax un trouble à l'ordre public waye Cour suprême juge bi mom koy xamal ne ko donte yoon daf la jox sañ-sañ bobu mais yow aussi da nga wara a def sa lay katane jéem a mobiliser bépp force de l'ordre pour que ñi nga xam ne tey dañu am àq ak yelleef war a manifester war a def doxum ñaxtu nga jël bépp matuwaay ba nga xam ni tey droit boobu constitution bi jox leen ci ñu tënk ko ci article 10 euh, droit boobu bu leen ko kenn xañ cour suprême demaat récemment en 2019 rappelé waat ki nga xam te moom mooy autorité préfectorale bi Euh, ci benn arrêté le préfet daf ko jëloon mu euh, numéro 31 euh, en fait le 31 août 2018 donne interdire également une manifestation donc c'est que je indi pour te montrer que ni attachement à nga le juge suprême daf des libertés individuelles voilà euh, attachement bi nga cour suprême le juge suprême daf ko am ci li nga xam ne euh, donc tay bu ñu en 2019-2020, nous avons ñu gis que ni ki nga parce que dañ doon manifester donc loolu man dama japp constituer leur

lepp lo xamni tay ci mbirum garantie la lo xamni ni euh, ëllëg bu ko yoon wowe warna na ñew a euh, je pense que ni garantie yoy tey Guy Marius Sagna daf ko daf ko daf ko présenter te c'est vrai que chef d'inculpation yi buñ ko xawna bari mais buñ la xësee ba déglu ci ben chef d'inculpation rek je pense que ni à partir de ce moment sa avocat war na mën a demander li nga xam te moom mooy liberté provisoire boobu te le plus souvent ñi koy def ñëpp dañ leen koy accordé donc mhm. tey bu ñu gisee que ni euh, Guy mari Sagna également dañ ko bañal euh, liberté provisoire boobu donc franchement euh, mbir mi dafay xaw a nduru benn benn acharnement. justement ci la bëggoon ñëw conséquence de tout cela ndax da nga jàppee ne acharnement la ak itam ñi nga xamante ne délit yi nga xamante ne ñoom moom lañ leen doon toppee ñoom ñëpp bokkut daa am liñ ci yokkal Guy mari Sagna waaw moom laa lay wax ni xam nga finalement euh, li li ma fait yi ma rappelé yëpp ba pare ma wax la ne déjà malgré que moom am na ay chef d'inculpation yu bëri yoo xam dañ ko teg ci loxo euh, ci ndodom mais benn chef d'inculpation rek bu ñu ci xësee déglu le plus souvent li ñuy gis en tout cas dans la jurisprudence mooy que nit ki dañ koy may liberté provisoire donc Guy Marius Sagna bu ñu gisee ni dañ ko téye donc ci perception bi ñu am mooy dafay mel ni dañ ko singili dafay xaw a nduróol ko ni dafa am benn acharnement boo xam ni dañ koy dañ koy teg ci kawam te loolu encore une fois de plus en tant que défenseur du droit de l'homme koo xam ne dafay xeex ak ak yelef loolu dafay nekk loo xam ne xel mënu ko nangu te man ma jàpp que ni fi ñu toll nii suñu état de droit fi ñu toll nii ci suñu réew en matière de démocratie je pense que ni étape bi waroon nañ ko waroon nañ ko mun a mun a mun a mun a weesu

tey bu ñu amee loo xam ne war nañ ko mën a wax le président de la république conseil bon pas conseil mais bu ñu ko mënee interpeller bu ñu ko mënee dolli ci loo xam ne xëy na war na mën a bokk ci luy tabax réew mi dañ koy wax ni ko li nga xam tey moom mooy les libertés individuelles li nga xam tey constitution bi moom moo ko jox Sénégalais yi nañu bàyyi nit ñi ñuy manifester c'est-à-dire dañu war a toll foo xam ni manifestation dañ ko war a banaliser dañu war a toll foo xam ni manifestation pour man c'est-à-dire waratul nekk loo xam ni dafay am benn contrainte parce que au-delà sax mu que lo xamni sous suñu constitution moom prévoir mais lolu tay c'est l'expression de la démocratie dans toutes ses formes je pense que ni réew mu am démocratie réew mo xamni dañ koy bako am na yenn yo xamni yenn liberté individuelle yo xamni dafa wara nek ay ay ay droits élémentaires lu ci melni dox doxum ñaxtu damay fàttali souvent que ni euh, euh, Sénégal citoyens yi dañu nekk un peuple boo xam ni dañu dañu dañu éduqué c'est-à-dire man rare na ma gis manifestation boo xam ni dañ ko autorisé mu terminer ci violence à à chaque fois que manifestation yi ñu koy autorisé di ko encadrer musul déboucher ci ay violence musul causer li nga xam te moom la ñuy wax un trouble à l'ordre public te le plus souvent boo xoolee préfet bi euh, euh, motif bobu lay indi li su ma ko su ma ko su ma ko am trouble à l'ordre public donc may rappeler que ni ñun le peuple qu'on a fa nek peuple bo xamni ni dañ leen éduqué fa nek peuple bo xamni ni dañu civilisé man. mais peuple bobu mo mo, moo yëgalul yaramam li dal Guy marissa Sagna mi nga xamni bobé askan moko ko taxoon ba mu jural ko nekkum kasso gi noo gisee euh, ñàkk mobilisation autour de mbiru Guy Marius Sagna nit ñaa ngi xëy doxi seen soxla te ki leen doon xeexal nga ca kaso ba mel ni yëngalul sa waa Sénégal loolu moom gan jàngat nga ciy def. <laughs> waaw loolu jàngat bi bon euh, je pense que ni aussi c'est le loolu mun naa ni nature sénégalais la c'est-à-dire ñun dañu am peuple boo xam ni. dañu xaw a passif dañu am peuple boo xam ni xëy na yenn nii duñ ko duñ ko duñ ko farataal donc man dama jàpp que ni euh, Guy Marius Sagna euh, nekkem ci kaso bi je pense que ni kenn ku nekk si ñun wax dëgg yàlla daf ko daf ko war a def yitteem parce que tey man mii di wax nii su ma xëyoon suba ñu teg ma loxo je sais que ni Guy Marius Sagna va porter sa combat te yàgg na fi porter ay combat yoo xam ni bon combat wu citoyen ñëpp la donc man dama jàpp que ni bon kenn ku nekk si ñun en tout cas war na ko mun a def yitteem en tout cas moo xam nag ban façon de plaidoyer lay def moo xam ci nan la koy fësalee. mais di ci wax di ci dox ba nga non seulement Guy Sagna dina ci mais également euh, d'autres am genre kaawu Guy Sagna maanaam dinañ toll foo xam de la liberté dañ koy banaliser expression euh, des droits fondamentaux dootul am benn benn restriction. xam nga xam nga liberté provisoire bu koy faral di wax bi na ni sax liberté provisoire procureur doole jooju procureur euh, am est-ce que jot jotul ñu xaw ko wàññi lu ci mel ni euh, euh, article 139 du bu code de procédure pénale mi nga xam ni saa yu juge bi ne damay may liberté provisoire su procureur bi bañee rek liberté provisoire bi du am est-ce que loolu war su ko dindi. waaw mais loolu je pense que ni bu ngeen di suivre le forum du justiciable loolu dañ ko yàgg dañ ko yàgg dénoncer parce que boo xoolee tey bu ñu defee mandat de dépôt tay procureur bu délivrer mandat de dépôt inculpé bi amul ben sañ-sañ contester li nga xam le bien fondé de ce mandat de dépôt amuñu sañ-sañ bob te bo jëlé bu ñu une étude comparative avec le droit français en France quand le juge juge d'instruction bu jëlé ben ordonnance de dépôt inculpé bi fay am possibilité taxaw ne ko monsieur le juge d'accord ma ci bien fondé mandat de dépôt bi su boobaa ñu dem devant la chambre d'accusation chambre d'accusation bi addu mais fi Sénégal à l'état actuel de notre législation euh, euh, euh, ki nga xam ne tey ci moom la mandat de dépôt bi ci kawam kooku amul benn moyen amul benn moyen de recours boo xam contester le bien fondé de ce mandat de dépôt par contre procureur moom am parce que déjà procureur non seulement tey bu ñu mayee liberté provisoire procureur amna na sañ-sañ taxaw devant la chambre d'accusation ne man d'accorduma ci li nga xam te moom mooy liberté provisoire bobu mu nek lo xam c'est vraiment paradoxal parce que damay faral di wax souvent que ni procureur c'est une partie au procès procureur dafa am fo xamni mom fofu la faré man xel doonoon nako nangu sax bu doon tay c'est le juge des libertés ki nga xamni farul fenn ki nga xamni c'est un magistrat du siège ki nga xamni euh mun naa ni euh, euh, ci li nga xam mom moy euh, le ministre de la justice tënkuwul ci li nga xam mooy exécutif yi mais bu dee procureur la xel du comprendre koo xam dafa am fu mu far juge euh, les juges yi nga xam ne juge ak accès ak ses assesseurs nga c'est des juges indépendants ne diw may nañ ko li nga xam te mooy liberté provisoire procureur taxaw ne man d'accord ma ci liberté provisoire boobu ñu devant la cour suprême pour mun ko vider mais bu xësee ba def recours bu procureur bu xësee ba taxaw ne d' accord ma ci loolu dafay nekk un recours suspensif procureur bu ne d' accord ma sax kenn du examiner dossier de demande de mise en liberté provisoire doole procureur jooju nga xam ni am na boroom xam-xam yu bëri yu jàpp ne dañ ko war a wàññi loolu moom yaakaar nga ni. Euh, sunu système bi ak nguur gi dana ko mës a defa mais loolu en fait je pense que ni c'est des réformes parce que xam également loolu également euh, union des magistrats bi ñi mujjé def sen sen sen colloque donc invité woon du société civile invité woon ci tous les acteurs de la justice bokkon na ci recommandation yi nga xamé ni euh, dañ ko proposer woon ñu xolaat li nga xam te moom le statut du parquet naka lañuy ñuy li nga xam te moom mooy pouvoiru procureur parce que encore une fois de plus dañu nek ci système bo xamni nous avons un procureur qui est très puissant qui a trop de pouvoir légui nak lolu Babacar réforme Donc, il faudrait qu'il y ait une volonté politique. Je pense une question de volonté politique. Mais volonté politique est-ce que cette longue réforme wa qui est lu li nga est réforme euh, bi nangu na est Wa. réforme du réforme Madame euh, procureur bi comme euh, ni muy ci yi euh, ministre de la justice wala exécutif procureur. waaw mais loolu mooy ci réforme yi. Ah. déjà nañ mais en fait xam déjà dama lay parce que le président de la République son excellence monsieur Macky Sall dafa defoon sur place benn comité mu joxoon pouvoir ne leen bëgg ngeen ñu naka moderniser li nga euh, la justice donc comité Bob, je pense que nous parlons de liggéeyam donc préoccupation yu bëri grande. xam sénégalais qui ont les justiciables am ko euh, askan bi mais dañ ko des ci conclusion Yoy. mais jusqu'à présent euh, comité Bob, je pense que c'était le doyen Jacob Ndiaye le professeur Jacob Momoko Momoko mais jusqu'à présent xamuñu fa la conclusion donc c'est aussi une question de volonté politique Nous xamuñu lan moo parfois bu ñu santaane li nga xam ne tey moom mooy ay réformes bu ñu santaane ay études te ay conclusion yu am solo la non seulement ñu xoolaat li nga xam té moy statut du parquet procureur poste bi mu nekk genre appel à candidature justement. donc ñom ci seen biir ñu xol ñan ñoo gëna xarañ ñan ñoo gëna présenter les les critères mais également ci proposition yi sax demoon nañ bu plus loin nañu instaurer li nga xam té moy un juge des libertés maintenant question su boobaa euh, la question des mandats de dépôt dañ koy régler parce que bu ñu tegatee nit loxo dotul nekk procureur moom mooy am sañ-sañ né diw demal yóbbu leen ko nañ ko yobul rebeus nañ dañ ko euh, en détention euh, euh, préventive su boobaa loolu dañ koy teggil procureur. Mm-hmm. dañ nan léegi c'est le juge des libertés mom moy statuer donc loolu lepp mais est-ce que gisoo ni ñoom itam yenn saa exécutif bi limuy muy maye ci loxo bi da koy rocc ci yenen ndax bo setlo ci appel à candidature bobu ci walu parquet bi ci amna ci stade bi nga xamantene ci lañ koy yemale ci liñu nangou euh, lol aussi bon mun naa c'est vrai mun parce que en fait c'est ça le pouvoir également parce que nous aussi dinañ jéem a xool ci technique dinañ jéem a xool ci seen moyens naka la def ba euh, du ñu am benn pouvoir judiciaire boo xam ni dafay contrôler les parce que nous le plus souvent boo xoolee li ñuy wax beaucoup bëgguñu basculer ci li ñuy wax république des juges parce que bëgguñu am aussi ben benn réew moo xam ne juge yi dañ fay am dolé ba nga xam exécutif dootul mun a am euh, loxo ci juge boo xoolee. maanaam Sénégal tollagul ci mat. bon en fait lañ hmm. dañu dit que ni Sénégal fi mu parce que en fait nous sax que euh, du waay du question mais dañuy ragal le pouvoir judiciaire Nous jox ko ëllëg si biir xëy na ñoom. mu neex tëj ku mu neex voilà te mais man yaakaaruma ni gaw ni war nañ mën a dem ci li ñuy wax la république des juges am parce que aussi fii dañu nekk ci réew moo xam ni tey juges yi bu ñu leen joxoon doole boobu jox leen euh, déjà ñoom ñu jiitee le conseil supérieur de la magistrature que président génn fa parce que tey président de la république boo xoolee li gën a tax mu des ci conseil supérieur de la magistrature moom ak le ministre de la justice parce que argumentaire bi ñuy avancé mooy bëgguñu dem ci li ñuy wax une république des juges te man ma japp que ni tay même le président de la république ak le ministre de la justice buñu ñu ci conseil supérieur de la magistrature juge yi seen jëmi bop ñom ñu des fa askan bi du nangu ben yoon ñom aussi ñuy bum di bumi di def lo xam c'est pas conforme à la loi su boba également askan bi dinañ fi nek dinañ leen mën di contrôler dinañ leen mën di surveiller man ma japp que ni bon lolu xëy na argumentaire la bo xamni ñong koy avancer mais je pense que ni fiñ ñu toll nii ci walum réforme lépp pare na Georges euh, li nga xam ne tey moom mooy le conseil supérieur de la magistrature y a des propositions yoo xam ni def nañ ko li nga xam ne également mooy naka la ñuy def ba gën a renforcer la question de l' indépendance de la justice surtout le magistrat du siège bi nga xam ne le plus souvent le principe de l'inamovibilité mooy principe bi nga xam ne tey moom moo koy gën a moom mooy dëgëral li nga xam tey moom mooy indépendance am parce que dans la pratique dañu gis que ni même ce principe de l'inamovibilité parfois dañ koy contourner naka lañ koy contourner magistrat yi le juge du siège au lieu que ñu koy nommer comme ki nga xam tey dafay am dafay nekk titulaire parce que un titulaire pour nga mun ko déplacer il faudrait que nga laaj ko consentement am mais buñ la defee euh, en position d' intérim ngay assurer benn intérim su boobaa à tout moment mun nañ la mun nañ la hmm. mun nañ la mun nañ la fa jëlee. léegi démb conférence de presse bi nga xam ni mbootaay yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu daal duram ñoo ko doon amal seenuñ la ca lu tax bokkoo ca euh, ci mbirum gi Marius Sagna googu. waaw en fait euh, dañ ko yëgalu nag yëgu forum du justiciable yëgaluñ leen li nga xam tey moom conférence de presse boobu. lu xew euh, sa diggante grand yi. xam nga tàmbalee six. waaw xam nga nag bon parfois euh, grand yi seen démarche doo comprendre parce que man damay faral di souvent que ni gis nga question de droits humains Assane Dioma ak Seydi waaw question de droits humains du du club. c'est-à-dire dañ ko bëgg a def genre club parce que le plus souvent ñun loolu lañ constaté communiqué yëpp yu ñuy c'est des communiqués conjoints entre Amnesty Ligue sénégalaise euh, Donc nous on s'est posé la question pourquoi le plus souvent le forum du justiciable nous koy associé à mbir Je te ma que le forum du justiciable aussi nous bëgg nous ñu bañ ko ñun dañu preuve nous sommes une euh, organisation légalement constituée avons nañ suñu récépissé hein? donc depuis 2012 nous nañ un statut juridique donc je pense que même à l'international on est reconnu par l'ONU ONU du def lenn loo xam ne ko donc bu même à l'international, l' international dañu reconnaître suñu autorité donc je comprends mal ci Sénégal parfois bu fi organisation une di def ay mbir yoo xam duñu ko yëgal bon ñun aussi dañuy toog jàpp suñu et je pense que ni mbirum bi liñ ci def pour vous dire on a rencontré Guy Marissa en fait pour vous dire que ni nekk question donc nous aussi sommes sur notre côté di mener combat euh, di dénoncer voilà mais est-ce que sa sorti yenn ndax yenn on euh, euh, lay gis ngay yenn organisation ci doxalin sax surtout ci politique. George, lay wax gis nga ñun c'est-à-dire gis nga dañu am société civile xam nga saa yi dañu bëgg benn société civile boo xam ni dafay équilibré maanaam société civile boo xam ni du am kersa bu opposition bi juumee ñu xamal ni ko du nga juum bu nguur juumee ñu xamal ni ko du nga juum ñun mode société civile boobu lañ bëgg indi amuñu kersa tey euh, recadrer l'opposition amuñu kersa tey recadrer li nga xam ne tey moom mooy moom mooy le pouvoir. 10 secondes moo ñu desee euh, Seydi Gassama mi jiite Amnesty International Sénégal yàmbaa jim ne nañ ko daganal yow nga jéem. non man anduma ci franchement Sénégal bu ñu ni nañu daganal li nga xam tay dama ni plaider à que violence bi plaider à ce que nos jeunes frères yi nga xam ni yanda donc je pense que ni tay bu le législateur interdire li nga l'usage du Yamba am na fu ko teg donc réew mi mel ni Sénégal nga bëgg ne da ngay légaliser yamba donc loolu je pense que ni nekk na décision boo xam ñun forum du justiciable. mënuñu hmm. ko mënuñu ko accepter. jërëjëf Babacar Ba njiital forum du justiciable euh, mbootaay gu sàmmal nit ñi seen ak seen yelleef fii ci euh, Sénégal jaa ngeen jëf mbokk yi yéen ñi ñu topp ci suba ak léegi ci RFM ak ci TFM ci RFM matin yéen doog jàmm ba ëllëg 6 heures incha allah.